ci màggal bis bii bis bii nga xam ne Serigne Mountakha moo ko digle man de wóor na ma ni képp ku jëfe ndigalam di nga ci dajeeg lu fooxa sa njort ba tax na sant nañ yàlla ci bi ñu ci boole maa ngi sant bu baax ah di sant bokki taalibe yi ma gën a sant bokk na ci liggéey bu rëy bi nga xam ne sëñ Béthio bàyyee nañu ko muy xasida yi suba ak léegi mu mel ni kuréel yi dañoo mujj sax wàññi leen ndax xam nañu du xaj ci bismi bi loolu nag ak cat da koo gën a féete kaw ndax xasaayit di mooy liggéey bi sëñ mu taxaa wax nañu ko ñu ngi sant bu baax tey ñaan mu yàgg fi téwér maa ngi feggoog sabarat mi daa di xam naa boo ko ci mën na cee sànni kàddu salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di siyaar bu baax Diouf ñu ngi sant bu wér di santaat sëriñ bi tey nuyu suñu Saliou ndigal ci di ko siyaare bu wér di siyaare suñu xalifa général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké di siyaare seen Cheikh mu Serigne Saliou Mbacké ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñu ngi santaat ci bis bii nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké moonu si bool taw féexkat weesuwul am am ndigal ñaari yoon ndax xasida yii te Serigne bi wax ko léegi dañu cee am ndigalu Serigne Touba njëkk Serigne Touba euh, Serigne Touba Serigne Saliou ñëw yee salaat ko si ñun ki nga xam ne moom la ñu booleel di sëñ Béthio nga xam ne ku ne xam na ne lim def ci xasida ci taalibe mi néewaa na fooy dem gis ko nga xam ne sëñ Béthio daa teel a comprendre moom teel a xam Serigne Touba li ko xasida yi jaral sëriñ Touba lim déyli ci xasida yi te bind ko fu ne ci moom nga xam ne xasida yi ñuy jàng. mënoo ci jàng xasida ba mu jeex daanaka te déggoo lu ci Serigne Touba wax ci xasida yi Serigne Saliou nga xam ne da ci daan soññee euh, fii tey ñi fi ne nga xam ne su ak léegi ñuy boot seeni loxo di ko jàng te ñëpp di waa kër sëñ Mbéthio firndeel na fa sëñ Mbéthio tegoon xasaay nga xam ne bokkoon na ci ndigal yi nga xam ne moom lay wax fu mu toll mooy màggal gi nga xam ne sëñ kenn gënu ko cee ràññeeku ak xas day sëriñ Tuubaa yi ba tax na mu liggéey ci liggéey boo xam ne adduna sépp teg nañ ci bët tey nag seen mu Muntaxa yee salaat ndigal loolu nga xam ne ku nekkat mënoon ngaa ne fi nga ne jàng fa xasida yool bi fekk la ci waaye ndigal li am tey ci jàng ko nag day mel ni buñ daan am xasida ci yoolu xasida benn tey dañ ci am fukk ndax li nga xam ne moo sos yoonu murit mooy base yoonu murit li nga xam ne mooy kanu yi di ndigal moonu fi indi lii xasida yi baax baax tey ndigal liñ ci am buñ ci amoon benn tey am nañ ci fukk kon taw féex bi nu Serigne Touba defal ba nga xam ne ku ca jàngoon benn baat ñibbi rek am nga yool woo xam ne mënoo koon am ci àddina ak ci biir ndax tuwasilu aqlaami ilallaahi haabidan bila xalwatin wallahu abxa kama na Serigne tubaa wax lim wax ci xasida yi nga xam ne mën naa ciy lim ay bayt yu bëree bëri nga xam ne wax na ne xasida yi di ku ko toppoon rek mu yóbbu si yàlla mat na sëriñu tarbiya mat na ñu am ñaar yëpp am xasida yi am sëriñ Touba Serigne Mountakha mi nga xam ne lislaam werante wuñu ak lislaamam yoonu murit werante ak bëggam sëriñ tubaa nga xam ne day mel ne yeesalaat na ci murit bu ne sa bëgg sëriñ Touba tey Serigne Mountakha li Serigne Touba waxoon ni fokk lu man xab la wu suma lien tasal wala mu yurab bi mu rab mel ni ñu ngi ci tëg mu Mountakha muy ci wàllu social ci wàllu diine ci wàllu yoonu murit moom waxatuñ ko ndax fi mu ko teg jàpp naa ne euh, soññ na képp ki murit kon ñun ñi nga xam ne mooy taali ñooy ñun ñi nga xam ñooy taalibe yi te mu yóbbaale nu géew ñu ngi sant bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool lool te ànd ak day mel ni bis bi tey man de ñaan ñaanal ma ci bopp moom laa ci ñaanal ndax wóor na ma ne bu fi yàggee ñu yàgg wóor na ma ne bu fi yàggee li mu bëgg ci yoonu muy muy saggu Serigne baa yokk dina kon daal xam naa wax ji du ci bari ñu ngi santaat Serigne bu baax a baax jërëjëf.